fi tax daje yàlla sama borom yërëm leen te jéggal leen way jur yi jiitu sama borom yërëm leen te jéggal leen way jur yi fi des di dund yàlla sama borom bàyyi ñoom ñoom ba ca kanam ñu gunge yi yàlla sama borom dafa leen ak wér te dëggu leen kattan barke Seydina Ousmane am naa mbégte loolu nag ngeen woo ma ma ñëw wuy si leen tabbi ci seen biir comme ni ma leen ko waxee woon daaw rek mooy li fi nekk ba léegi yaa ah? ngi suuf waay mais day metti day metti fii fii tali la moo tax laluñu ko defuñu ko dara bàyyi leen gars yi ñu taxaw rek comme maa ngi jàkkaarloog ñoom rek sama borom day def taw feex incha allah rabbi comme tax naa waa rek nañ ko wax amul benn problème daa ko gérer jooju ji daa koy waaw bàyyi leen ko bàyyi leen jàmbur bàyyi leen jàmbur bàyyi leen jàmbur bàyyi leen jàmbur leen ko <laughs> yaa ngi a gën a gore baax na kon nag sang Mbacke Bal waaw sëñ Modou moom dafa baax rek dafa baax rek waaye mu ne ma dénk leen ay kàddu waaye kàddu yi moom du soppeeku du soppeeku toujours li may wax rek dama bëgg ñun mbokk taalibe yëpp ñu delluwaat ci wetu way jur yi ñu delluwaat ci wetu way jur yi jàppale leen ndax way jur yi ñu ci bari ay mag lañu te seen doole demeetul noonu bu ko defee ñun ñoo war a jël relève bi ci ñoom man leen a taxaw ngir ñoom yàlla sama borom man leen a defal jàmm ñoom it ñu dañu gàgganti di ñu teg ci yoon yàlla sama borom dimbali ñu kon maa ngi ñaan mbokki taalibe bi yëpp ku ci amoon ak réeroo say wayjur na nga delluwaat ci ñoom nga jéggalu leen te nga toog ci sa ndax ni ma leen koy waxee mooy képp ku bàyyi say wayjur bàyyi say mbokk dem ci wayjuri jàmbur ak mbokki jàmbur rek ngay jëm la ngay def ko jubóog ñoom nag boo ko defee jubóog say mbokk jubóog say way jur leen di xuloog way jur yi ak di werante ak ñoom ay way jur boo nekkee ak ñoom da ngay jëfandikook ñoom ay teggiin buñ la waxee loo man def ko bu la waxee loo mënut jëfe ko ci ay teggiin tàllale say loxo ñu ñaanal la bu génnee yàlla ànd ak yow foo jublu yàlla sama borom ànd fa ak yow li nga bëgg lépp day nekk beneen bi ci des mooy ñuy jaamu sama borom ni mu ñu war a ndax loolu moo tax mu wàcce ñu ci doiru duniyaa gi amul solo day jeex gis ngeen tey suñu mbokkum taalibe bi mii nga xam ne moo fi nekkoon ak ñun dañ daan xëy di wax ak moom di ànd ak moom di demandoo moom lépp ñu koy defal loolu moom dem na jiitu ñu tey na na leen leer lu mu yàgg-yàgg dañ koy fekk yal nañu sama borom dimbule nag ndegam mënta ñàkk te day am yal nañu sama borom dimbale buy am fekk ñu ci lu neex sama borom ci darajay xaadimu rasul maa ngi leen di siyaar bu baax di leen balu àq ci weeru koor gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah Muhammad bàyyi suñu diggante moom mooy bokk bëgg-bëgg muy Cheikh Fall waaw muy Baye Fall yàlla na ko yàlla dolli gërëm barki maam Cheikh Fall ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax waaw te mbokk taalib yi des yëpp ñu yàgg fi ñu yàgg fi waaw jaajëfate afiya rek afiya rek jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbóot mi la mbóot mooy Serafal mbóot mi la mais ñuy sant ñi koy taxawal nag ñi koy taxawal yal nañu yàlla fay di sant si gargat yu mag a mag yi teew ku ci mel ni ñoom Gaucher ñoom Mandiaye ah ñoom nii ah yàlla na seen jàmm yàgg afiya rek afiya yàlla na ñëpp am jàmm. lam nekkoon moo wóor rek lam nekkoon moo wóor lam nekkoon moo gën lam nekkoon mooy dëgg parce que nit ki moom boo nekkee ci loo xamante ni mooy li gën te doon dëgg balaa nga koo xam nga bàyyee ko fi maanaam moom bàyyee góom gi mu fi bàyyee ko wóor na ni moom bàyyi faal gi doon dund ci jëmmam ji dëgg la wax dëgg fa la waaye nag gàcce nga lama itamit ñi nga xamante ni ñoom la fi bàyyi nga xamante ni ñoo koy taxaw ba chaque année ñu taxawal ko ba mbéy gay mbaay fayul en tout moom wàllam wéy bi dimbali bañ am li mu am ndax am li mu am nag jafe na ëllëg Cheikh ah, cant gi moom dañ ci sant yàlla rek ndax mbay gee mbaay moo tax ñu koy def bon tey xam naa ne fu mu tëdd tey xolam sedd na waaye borom daar dafa ñëw couleur rëpp tey comme ni mu ko naan couleur bis bi tey ku fi ñëw sa yaram daaw na ndax kenn xaju fi man ragal naa ne cant gi xajatu fi sax xajatul fii ndax euh, ni mbooloo mi demee eh, sécurité la amatul kon yaakaar naa yóbbu ko ci biir rue 22 sax mooy gën waaye bu loolu jàllee ñi ngi ñaanalaan Mbaye Gueye Mbaye yàlla yërëm ko te jéggal ko xare ko àjjana ndax lii lépp moo ko liggéey di santaat waa koñ bi di santaat waa ahlu kafe gi yëpp maa Abdou Faye mi nga xam ne mooy président bi di santaat suñu jigéen ñi Fatmata Lo ak ñin ko àndal ñëpp ndax lii moom doon na loo xamee ni que nii ku sa yaram dawut dootul daw waaye borom daaru yàlla na fi yàgg loolu te wér ak njabootu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooré ni waaye suñu xool sedd na suñu xool tooy na ñu ngi ziar mbokki taalibe yëpp di ñaan ci réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm def ko ci àdduna di waaye ahlu café gi moom mention spéciale ndax tey boo xoolee ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ñoom Abdou Salam ñoom Sabata ñoom Tafa Ndiaye ak suñu gaay yi tukki yëpp cant gi tay ni mu yokkoo sax danaka bim fi nek nekk booba won noonu waaye Serigne Touba yoonam yooni moma tanki naw tanki nam rek lam ku fi ñew xam ne ni mer mel mosunoo mel parce que tey boo xoolee ba sa beut yam mbolo mi ni ñu toll sa yaram day daw ñàkk fu mu jaar moo waral mu jaar ci ginaaw baas bi kon mbolo mi yokku na ndax daaw fi la jaaroon waaye nag sant yàlla rek ñi sante wa cafe café gi ñëpp ñëpp di santaat waa Médina di santaat presse bi yëpp surtout waa presse la presse ñi sant ñëpp gis nañ di ngeen ci jàppe waa Dak TV ñu ngi leen ziar di ziar bu baax suñu yaay ci kër gi mère Ami fay ah mère Nday ngoom ak seeni doom ak njaboot gi yëpp di santaat suñu mbokk uude yi ndax tey ji fu cant gi toll ñoom bokk nañ ci di santaat ñu ne Europe ñu ne États-Unis seen xaalis ñëpp dugal nañ ko ci seen addiya bu ñu limee fi la ñuy fanaan waaye daal sant nañ gërëm ñëpp sunu bay yaay sunu maam bay yaay li Hallelujah.